ñun dañu ne loolu tam mënuñu ko nangu fu ñu koy defee duñu ko fekkee ñu xeex ci taxaw ci luñ ci war a def ñu def ko noonu ñu ko wañe woon démb ak tey noonu la ñu continuer di bañ aussi ñuy utiliser la justice pour ci di dal ci benn citoyen bu mu mën a doon nous sommes contre l'instrumentalisation de la justice loolu dama bëgg mu leer ni ñu bañ a léegi troisième mandat ak fépp fu ñu koy xeexee noonu la ñu bañ a instrumentalisation de la justice te fépp fu ñu koy xeexee ñun dinañ ñu gis ci seen wet loolu moo tax ma dellu si ci xam naa ne journaliste yu bëri moom laaj boobu moo ngi ci seen moo ngi bëgg moo ngi ci seen xel muy keroog fa nga xamante ni fa lañ doon xeexee troisième mandat F24 jiite ko woon ñun ñu teewoon fa am na ci ñoo xamante ni dégg nañ leen ñu wax ne peuple bi ñoo ko doon yuuxu wala ndaw ñi ñoo ko doon yuuxu peuple Sénégal mësuñoo yuuxu jeunesse su Sénégal jeunesse su Sénégal mosuñoo yuuxu au contraire ñun dañu ko wax ñu ne nu sommes la candidature de la jeunesse nous sommes la candidature aussi du peuple sénégalais ndax li tax mooy ñun nommé wuñu ñu ñu ne dañuy nekk candidat cinquante six mille trois cent trois personnes ñoo nañu yow dañoo bëgg nga dem taxawal ñu assemblée nationale ba ñu ci jógee defaat liggéey boo xamante ni ci biir réew mi réew ñu ñoo ne yow mii kat ñun bëgg nañu nga bokk ci ñi nga xamante ni dañuy xëccoo réew mi ci 25 février 2024. te keroog ba ñu yëkkatee sunu kàddu la 6 mai ba tey ma ciy gërëm bu baax waa Caajaay ak ñi nga xamante ni ñëpp fekkoon nañu Caajaay keroog ak ñi amoon yéene ñëw te ñëwuñu. ak ñi nga xamante ni ña nga toogoon fa ñu toog di ñu ñaanal ne depuis que ñu wax ne dañoo bëgg bokk ba tey ndekete sénégalais yi ñoo ñu ko gën a bëgg ndekete sénégalais yi ñoo ñu ko gën a yàkkamti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 ma ne leen def ngeen ko bu bëri ndax li ñu amee tey jii ci joola soose wolof ak loo mën di jël mandeng ak lépp ñoo ngi tey téye liggéey bi ci biir parti les waaye yit waaye yit waaye yit la nekk Casamance la nekk Sédhiou Pakao la nekk Kolda la grande région de la Casamance la fa nekk tey di ñu jàppale kenn xamul nu ñu toll loolu moo tax may digal ñooñ seeni kilifa ne leen nañ leen artu it ñu bàyyi loolu ñuy wax bu ñu ko wax te bu ñu ko jëfee ndax waasoo amul place ci Sénégal Sénégal gii lu ñu yàlla defal kenn xamul lu mu toll ci richesse kenn xamul cousinage à plaisanterie bi rek soo ko jëlee taw feex gënu koo rëy ci Sénégal kon Sénégal xamul problème mu xeexu diine Sénégal xamul problème waaso kon loolu damay ñaan ñu arrêté ko na dakk ndax nous avons une commune volonté de vivre ensemble et ce vivre ensemble là bu ko kenn fowe te loolu it loolu it damay wax ne président Macky Sall daf ci am responsabilité ndax Macky Sall la ñu gis ci réew mi mu xëy bàyyi njabootam di wax naan Fouta titre foncier makisal waxu leen dara foncier amul Sénégal amul benn homme politique Sénégal bu am titre foncier Ziguinchor sunuy yaaya fa ne ak sunuy pap ak sunuy morom yoo xamante ni xam nañ ne li ñuy def nii ñoom lañ koy defal ma maam suma maam bi jur suma waajur bu jigéen Ziguinchor Béykounda la takk jabar Béykounda a takk jabar ñi ñi xam Casamance xam nañ li may wax ñi xam Ziguinchor xam nañ li may wax su ma suma jur bu jigéen daanaka def na une partie de sa vie de son enfance à Sédhiou ndax su ma maam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon nañ former les premiers cadre yu jóge ci gox boobu nekkoon fa inspecteur de l'éducation et de la jeunesse kon li ma ci jubloo leeral mooy nañu xam ne Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar te waxoon naa leen te maa ngi ciy delluwaat di ko wax ne leen xuppaate ak xëppaate ñii xëppaatee amuñu benn chance ci ñun ñii xuppaate it amuñu benn chance ci ñun Sénégal moo ñu yëkkati te dara duñu téye kon loolu dama koy leeral keroog ci marche F24 bi di remercier toutes les forces vives de la nation yi fa daje woon keroog di gërëm bu baax di sant aussi les leaders des de de de cette de cette grande mobilisation yi nga xamante ni keroog. kenn koo ci jàkkaar loolu xam nga ne xar kanamam mbégte mu rëy moo ci nekk ngir dalal boo xamante ni dalal nañ ñu ko foofu keroog xam ne ñun fépp fu ñuy xeexee troisième mandat ña nga fa taxaw président Macky Sall bi ñu koy wax ne ko amoo droit am troisième candidature boobu xëy na ñu bari tey lañ koy wax bari na ci sax ñoo xamante ni dañ ko doon defaan tey jii ñoom ñoo nekk di ko rafetlu kon ñun bëgguñu troisième mandat bëgguñu it troisième candidature bi lor kenn ci réew mi donc président Macky Sall. ñoo ngi lay ñaan encore une fois euh, nga renoncer publiquement à cette troisième candidature parce que loolu dina participer à une paix sociale beneen bi nga xamante ni bëgg naa ñu wax ci trop mooy la justice aujourd'hui au Sénégal am na défi bu mag la justice sénégalaise